voilà kon ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon mbokku kii téléspectateurs yi nekk Equivox TV tey ñu taxaw ak benn champion bu bu mag waaye champion boo xam ne boo gis gisee ren balaa nga gisaat muy ay deux ans ou ou trois ans champion bu mag boo xam ne li li muy bëree bëriwul ñu koy njëkk a champion lan moo waral lan moo wara li li li ñu lay gis ngay takk ngeen bëriwul champion pourquoi lu waral loolu yow yaa gars yi ñoo la ragal li ngay laaj mu bëri wala lan la lu xew. waa Ndour ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. di julli si yonent bi di sant suñuy waajur di leen nuyu bu baax a baax di am contentement tey ngeen ñëw fekkuñu ñu fii nii war ñu war leen a dalal fii nii nekk ci biir géejawaay ba tey nga laaj question bu pertinente question bu am solo tey su ma toogee lu yàgg bëréw ma euh, du si man ndax kenn ku nekk bu doon sa sago boo yore sa marchandise booy jaay chaque jour da ngay jeexal mais làmb ji ñëpp xam nañ moo xaw a siite waaw léegi nag loolu noonu la noonu la noonu la ma dabee noonu la dabee sama ay morom mm-hmm. waaw am na ñi nga xam ñoo ngi bëre nag parce que kenn ku ne wërsëg yamul mm-hmm. mais ay jamono leer na la at bu nekk daan naa bëre ñaar yoon ñett ba mm-hmm. ñeent dem bu mujj ngay bëre ñett yoon dem bu mujj ngay bëre ñaar yoon dem bu mujj ngay bëre benn yoon par at dem bu mujj boo bëree di nga toogaat ay at doo bëre mais dañ koy sante yàlla nag tamit quoi parce que am na ñi nga xam ne tamit toog nañ ay at bëre tey bëgg nañ bëre mais lamb ji yow sa bopp xam nga ne lamb ji moo xaw a delluwaat ginnaaw tuuti rek waaw promoteur yi fa nekkoon ak bailleur yi amoon doole yi fa nekkoon xawoon téye seen loxo ci lamb ak sponsor yi loolu moo indi woon problème mooy indi woon jafe-jafe ju am si lamb ji quoi mais nag mbër bu ne bëre rek ngay bëgg ndax nag ndax nag mm, la am ci lamb ji lañ koy jëlee tamit bu ñu bëree suñu koom-koom dina gën a yokk waaw voilà la ñuy am ci làmb ji lañ koy jëlee ngeen nekk si mbëri nga xam ne ay mbëri champion yi nga xam ne amatuñu yeneen liggéey bu dul lamb nga nga am euh, nga nga war a war a bëre bëre woo te euh, amoo beneen euh, liggéey bu dul loolu la la la lay def méttiwul si yéen trop. naka ngeen di dundee moment yooyu. waaw man nag heureusement yàlla génne na ma si loolu quoi sant naa yàlla bu baax a baax su ma bëree hmm, su ma bëree yàlla ak may suturaal su ma bëriwul yàlla ak may ndax am naa leneen lu may def lu bokkul ak làmb. di woo suma rakk mbër yi tamit ne leen lamb ja Tyson waxoon mooy sumu métier ak lamb tey ji bokkul booy yi nañ dem jàng ji métier bu ñu amee combat bëre bu ñu amul combat dem jàpp seen métier nga xam ne duñ sonn duñ sonal kenn loolu maa ngi koy lancé appel sama rakku mbër yi ñu gën góorgóorlu si lool bu baax bàyyi si xel bu baax a baax ndax làmb téeméeri mbër yoo gis yàlla juróom yi wala fukki yi ñoom ñoo ciy génn comprendre nga léegi si loolu nag kon dina bëri ay mbëri am dañuy chômer wu te ku fekk amoo métier bu dëgër rek dalay lay indil ay jafe-jafe loolu ñu si sant yàlla bu baax a baax a baax di ko ñaaxaat suñu rakk yi bu baax a baax a baax. d'accord école de lutte bu Balla Gaye champion bu ñu ci ñëwee boo xoolee Balla dëgër la moo moo daan combat am yi passé waaye toogoon na deux ans bëriwul ñi nga xam tam ñoo ñoom ñoo topp ci ci gannaawam muy yéen ñi muy ñoom Elton gis nga xawul demee noonu. Euh, lan moo waral euh, résultat yooyu école de lutte am lan la lu ko waral. waaw mooy di si distance boobu la rek distance boobu lamb ji cité woon la rek mais tamit période tolloon nañ période bi nga xam ni école bi moom moo amoon benn niveau bi nga xam ne dafa xawoon yéeme demoon ba pour nga tëgg fa nit sax day xaw a jafe ndax niveau école bi moom moo toll woon foofu Balla Gaye moom fa di daan lees nekk fa di daan Elton nekk fa di daan soo ko sima keneen ak keneen ba at bu ne ñoo daan jël première wala école bi rek ngay wax ndax suñu école yàlla dafa def mu nekk première école de lutte nekk première école de lutte première école de lutte bu nekk roi des arènes loolu mu génne ay xale yi xam ne ñu am solo ku si mel ne ñoom Balla Gaye ak suma rak yeneen yu fa nekk yëpp mais daal ñun amoon nañ si de benn part parce que olof moo wax loolu ku naagu daagu ñun loolu moo daloon nag waaw ku naa ku ku naagu rek daagu ku daagu ñu romb la waaw loolu moom daloon non léegi am na yeneen jéego yu ñuy teg parce que wax nga Balla Gaye toog na fi ay ñaari at yi xam ne xawoon na difficile si moom boo xoolee léegi loolu changé na muy man muy keneen ak keneen donte bëriwuñ sax mais yàlla def na bu ñu peut être dinañ gën a gisaat leneen lu bokk la comme li daan gis si at yee passé ñaari at yu si ginnaaw. balaa ma ñëw ci dernière question mooy yow sa bopp say adversaire xaw nañ fi bëri champion euh, lamb ji bëri na si adversaire yow ñan ñooy si adversaire nga yaakaar ñan nga war a bëri du ma jeexal adversaire si lamb ji te lu lu ma lu ma dal moo dal samay adversaire bëri wuñ de ñoom tamit <laughs> man ak ñoom ñooy léegi loolu dafa am jenn jàngat bu ndaw la rek bu ma siy wax mooy dafa am trois catégories si lamb ji catégorie bu fiite kaw ak bu fiite si suuf bu nekk si diggante bi dañuy am jafe-jafe ndax bu nekk si mbër yi promoteur yi fi nekk mun nañ tëgg yenn lamb yi ba àgg ay un ba deux millions bu ñuy tëggaat dañuy tëggaat si lamb cinquante millions yi jëm kaw te yooyu ay quatre combats lay doon wala cinq combats léegi suñu génération bi am ñoo nekk si digg bi nga xam ne nag ñun dépassé nañ benn cachet bi te àgguñ si beneen cachet bi gars dañu fa obligé bàyyi ñu ndax que tey jii nii dafa am promoteurs yi nga xam ne da ngay ñëw fay yenn mbër yi cinq cent mille un million deux millions ñu feesal la stade bi comprendre nga yeneen mbër yi le temps nga si doon daj yenn coono yi ba pare euh, muy metti si yow gars yi tëgg combat yi dafa doon gën. waaw da doon gën da doon gën yomb si ñoom quoi. loolu moom moo waral ñu amoon jenn jafe-jafe ñun mais ak li xewaat ni ren ji ni ñoo ngi amaat yaakaar lamb ji dina amaat beneen jéego bu mu tegaat. est ce que tamit champion gisoo ne mbër yi ñuy wax ne ñoom ñu ëpp li ñuy mobiliser tam la ñuy ëpp li ñuy tëgg loolu tam amul le promoteur dafa mel ni ñuy mobiliser la ñuy jël mais jëluñu ñu mën a bëre wala. loolu loolu moo am si lamb léegi tëggatuñ pour mérite. mais da ngay mobiliser rek dañ lay tëgg yoo ngay mobiliser yoo la di gën a fay xaalis mais bu njëkk ba nag da doon am lamb amateur nga xool tey lees ak nduur mi combat la neex na amateur bëgg nañ ko nga tëgg ko boo ko tëggee lamb ji ngay gis ne mi ay ay supporter am sax mun nañ bañ ñëw mais amateur yi ñooy ñëw fees fa deuxièmement mooy na laa ko mën expliquer waaye mbër day bëre nga daanu promoteur bi woo la tëggaat la mayaat la sens lancé la nga dem mais loolu yooyu yëpp dafa dafa am lu mu yàq si lamb ji lu bare bare bare waaw mais parce que dañuy xool rek non non kii euh, mbër mi day bëri daan tamit pour mu bëriwaat problème la pour mu bëriwaat problème la da gis mbër mu ñu daan bi ñu yokkalaat ko prix yokkalaat ko kase muy continuer di gën a bëri dina bëri ñaari combat ba ñetti combat pour waaw yooyu daal dafa laaj jàngat yu bare waa axlu làmb yëpp toog jàngaat ñu xool li nga xam ne moom lañ yokkoon si làmb ji te baaxul ñu dind ko lañ si wàññi woon te nga xam ne moom mooy doxal làmb ñu dugalaat ko wala lamb jëm bu ñu jeexal champion dañu question ku wax lees wax ba Balla Gaye ngeen yàgg ànd ci lu bëri muy sarak muy sale waaye ngeen yàgg ànd nekk ay xarit ba coow li fan yi mooy Balla Gaye mu def sorti nee na ñi mu daan ñi ko daan ñëpp dañ ko ragal y compris sax ku mel ni Eumeu Sène ak yooyu ndax jàpp nga ne euh, ku mel ni Eumeu Sène war a war na mën a ragal Balla Gaye ak aussi li ñu naan Balla Gaye dàq bëre si génération am est-ce que loolu loo mën a confirmer la wala waaw Balla Gaye man mun naa confirme mun naa d' accord moom moo dàq bëri si génération loolu moom parce que kenn ku nekk ak sa gis-gis keneen bañu ma nag keneen gisee neneen quoi tamit moom bu fekkee comme kantan diw daf maa ragal daf maa ñeme loolu moom moom moo si jël benn décision parce que moom mooy taxaw xool moom mooy nekk si géew ba moom moo jàppanteeg mbër xam la mbër ma la mu fay kiiwanteeg moom comprendre nga mais lu ma gis moom xam naa ni moom bëreem moom man doy na ma sëkk waaw loolu moom d'accord naa ko moom waaw. lan lay lan ngay tàggoo sa fans yi supporters yi ak waa Guédiawaye yëpp loolu di wax. waa di leen santaat rek di remercier di leen ma leen di remercier tey jii ngeen ñëw jël suñu fii avant tout di wax sama supporters yeeg ak waa Guédiawaye yëpp ne ñoo ngi si ñoo ngi entraîné euh, ñoo ngi xaar rek bu ñu yàlla joxee combat dinañ bëre bu ñu joxul combat tamit ñu def comme nañ daan def rek waaw di ñaanal ñëpp Sénégal comme feebar bi fi nekk nii mu yàlla gaaw ko fi jeexal tàkk ah, dëkk bi metti na yàlla def def si poosu nit ñi dara parce que tamit <laughs> waaw lu mu kii kii tamit poos bi am dara rek nit ñi dinañ fàtte lu bare bare bare yàlla defaat jàmm si àdduna bi yëpp tamit defal ko rawatina waa Sénégal tamit waaw ñu yàlla defal ñu jàmm bu baax a baax màggal gii ñuy waaj nii yàlla ñu dem si jàmm ak dem dem si jàmm ak salaam dellu si bu ñëwee ni ñu waajaat gàmmu demaat si jàmm ak salaam waaw incha allahu rabbi sant ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu jéem yi nga xam ne moom moo ñu dajale fii tey tamit waaw di ko nuyu bu baax baax moom yàllaa ñu boole ba ñuy ànd xamul sax luy tëgg làmb waaw ba ñuy ànd xamul sax luy tëgg làmb kon tey bu xew xewlee ñu bàyyi suñu lépp ñëw moom moo ñu ko ji ji ñu ay teraanga waaw yàlla ko yàlla defal jàmm defal ko ñëpp. kon merci beaucoup mbokku euh, téléspectateur u Equivox TV euh, Double Less ngeen amoon mu nekkoon di àddu ci carrière am ak euh, lu mel noonu merci beaucoup jërë ngeen jëf beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf